internet et www.cefas-du6sénégal.com ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. yeah. ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nee na daa di ñoo di waaga ànd ak i salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaa fay daal. waaw. laa la ñu. comme ni ma la ko expliqué woon tout à l'heure ñànkoo ngi nii daayaane ngi waxtaan nañ te wax dëgg fa yàlla wax nañu projet yu am important mais xam nga du ma mën di la expliqué seeni wax tourné teew ñu ne daal ñànku. waaw léegi li ñu waxante woon ko ñoom daayaan sànq laa bëgg nga wax ko sama yaay pour affaire financement bi comme ça moom mu mën leen a financer. ngeen dem liggéey ndax tamit taxawaalu bi tamit neexatul ah. daal. non waaw nga fa nga dem. expliqué naa ko. li ñu waxante pour bu la financé li ñu ciy def léegi wax ko ko moom mu dégg ko pour mu am pour mu nem ñeme laa financé. waaw waaw léegi xam nga man lu ma leen di wax man damaa yor xaalis di financé ñu bëgg a liggéey bëgg dara ci seen bopp te yéen nag ay xale ngeen xaalis bi nag. sama xaalis la waaye xaalis nguur la dama am ay kayit yoo xam ne dafa nekk ci police bi ku ma lebal sama xaalis soo ma fayul dama la yóbbu police te balaa kenn du jot xaalis danga may garanti ñaar ñetteel ba damay xam ci yenn projet ngeen di yëngu pour ma jox leen xaalis ndax di wax dëgg yàlla adduna bi amul solo ñun ñëpp benn lañ yéen boo leen xëyee liggéey am dërëm denc am ñaar dërëm denc bu yàggee mën ngeen a changé lii xaleel la rek day day passé moo tax daal ma bëgg leen a dimbali. léegi na xam nga lan laa bëgg ku nekk wax ma lan mooy seen projet. ah waaw moom nga yàlla fa def am naa ay projet waaw am na ay projet yu bari yoo xamante ni waaw c'est si sa man si métier boo xam ne jàng naa ko ba moom ko sax dama kaa bàyyi woon xam waaye dinaa ko ci koñ bi avant nga ñëw fii fossé maa ko daan seen fossé maa ko daan vidé. liggéey ah. ma bëgg mooy nga demal ma jënd peel bu baax peel bu bees ak ak buum waaw. ma nag ma wax sama foro. li waxante woon laa wax. waaw ñanku projet boobu. waaw waaw dégg nga. laa bëgg. projet mo na ko mo labo on va so avec père warda ha sen wax wala ñaal père mau ben moy waxé ak père moy gassé ha mu amale ki ñu sio ha ak ak ak ak boum yow bo gassé par dañ lay fay non non do fait dama len dama len dama dama dama xol bi sabidillah dere ah jere jere naya man projet nga Aku بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لموت نعم. الشيطان نعم. أين تبيكور من مسن لا وقدم من أمنا في مسن واو مثل ما يسا بروزي لم يبقى بلق بلق direct may opéré rek di ñëw ku feebar ma dagg sa loxo bi sa tànk ma naan. ma nekk est-ce que loolu ci kanam nag bëgg def médecine lan moo si yoon financement bi li ñu waxante woon kër ga yow xanaa ñànku bi bu wérul sax ba yow nga mën a nekk nit yow li mooy sa projet yow kon daan man man daal man man ba ba may dee nii rek laay di du ma tekki dara ci àddina. kii la waxoon kii la waxoon Dior Dior Dior Dior fa de maanaam li ma wax jàng naa ko. munaas munaas. munaas. ay munaas kañ ngay nite. dëgg yàlla. munaas yow kañ nga yeewu. wax dëgg yàlla. munaas ban xale bu jigéen nga gis mu nelaw yow ñaata at yaa ngi nelaw yow munaas nga xam man sama xaalis bi dama ko jël ndeysaan dama ko dem fekk garab garab ma witti garab bi ñëw ku ñëw ma jox la ko. waaw nga indil ma sa ñii yow am nga jom yow ak ñii yow ni ñii doo tàqali koog ñoom sa ñaari ba tey baax na yow la waaye man xam nga ne man jëluma sama xaalis la jox koo xam ne day def sabilillah ndax man joxuñu ma xaalis la sabilillah kii nee na daal bëgg a dem opéré ji waaye yow boo jàngul médecine nooy opéré doom Sénégal léegi lépp am na ndax jàppoon nañ benn médecin temps yële baax la. waaw muy faj corona. waaw waaye man man sama xaalis financé wul lool léegi xam nga nu ñu def ngeen dem ba beneen yoon incha allah ndax man xaalis bi moom bëri na bëriwul 200000 lay commencé ba 1 million xam nga loolu mën na liggéey. waaw ci jamono juñ toll. waaw kii ñaar la ko. 500000. waaw yow ñaata nga ko ñaata nga ko. 200000 man 200000. yow 200000. waaw kii 500000. waaw sa liggéey xam nga bisabilillah la. waaw mënuma laa jox. dama la maa ngi jégalu. yow maanaam liggéey boo xam ne da def concours te def ko mënuma leen a jox maa ngi jégalu. ñànku comme que yow nee nga dof nga ba nga aidé doo wéy mais yow toppuroo ba dof ne moom yi ñaar àndaat leen dem te xam ne fii kenn du leen fi. maa ngi jégalu dem leen ba. baadoo lay ngeen doon xamoon naa ne bu ngeen fi yow fii wuy ma eh. ku ñuy lebal nga lebal ñu ku ñuy lebalul nga bàyyi. ah léegi lebalul la bàyyi mun naa sumay ma wala wuy ma dem leen ba ngeen am projet ngeen ñëw ma lebal leen amul problème. am nañ projet xanaa kay bu ñëwee su ma ñëwaatee projet bi laa lay wax su ma demaatee bu ma ñëwaatee projet bi laa lay wax. kon jarul ngay ñëw. waaw fii fii fii ku gedd sa yaay aya. ku gedd. yéen. ak ñu gedd. dama ne ma xam ne dama laa bëgg a fas ma dama ku gedd sa yaay. waaw ma xasee ma dama laa fii fii fii. คำดมาคำสบายบมาใช่ไหมสี่คนคำสบายคนสบายกว่าคนบ้านนะรู้คำสบายอันนั้นคำสบายรู้รู้กันฟิลเลอร์เร็วเวน่ะเร็ววนะเร็วไอ้จิ้งกันฟิงานะตั้งแล้วสิติลิมัย

Munas li ni luñ ma wax rek yow la du teel ma wax dara munas munas nekkal nit munas woyu yi bandi yi kacapaa yi nga top yow munas lan la yéen moo foogoon changé nañ yow mo bay dama damaa ñi ne ngeen di gisee foogoon ñi xalaat ñu leen gisee boobu ta yalla leen gisee ni ñi kañ ñi changer yow mi yalla war a Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango ni khair, nyanko ni saga, nene dade, dinyo diwaga, ande kikens, koko indaya, Nyango ni pa. Papa mlaja na nyango, yo khana kiso nyanko, yo bo khamon nyanko.